kiwu ko dëgg na loolu ay may wax ma ma ne yi xam weddkat yi nag dinañu bu ñu bu ñu laajul man dinaa leen sa sañ laaj foofu tariixa bi da képp ku boo ameel ak nit yomal xiyaam ci taay bi si amee siyaan ci magasin yàlla lañ koy fay kenn du ko fay ko sa jëf waaye kii nag ba ak ba ko tax parce que moom daf koo diggoon moom doomoo ko baal dama la ko baal dama la koy fay looloo tax ñu mu fay ko ko fayu ko ko waaye su dee woon ñu fekk ci magasin yàlla waaw la ndax bu ñu ko laajee réew mi dinañu ko laaj te kontar ke dañu dinañu ko laaj kontaré kontaré ko wax bi waaye loolu nag moo am ndax Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu dafa fonk charia te itam Euh, nga ne tarixa bi li muy rëy rëy rëy bu fekkee da nga taxaw di mooy yàlla ngir nga ne li ñu nangu tarixa bi si yow moo tax am na benn waay boo demee si kësul ijaab benn waay boo xam ne daf daan tux buy bëgg a dee nag mun wax laa ilaha illallah te bu ko waxul munul wax mooy du dee kon sax kii bi te dee ci lislaam a ngëm yàlla ci sarti tarixa bi mu nga ne tarixa bi la bokk mm-hmm. ba ñu ko waxee Seydi Ahmed Tidiane mu ni mu ni leen laaj leen ko lu mu doon def jabaram ndax jay ji góor gu ne say jabar la gën a xam mm-hmm. Mm-hmm. mu ni ah wax dëgg yàlla nangu naa weer di nangu wasi fa sa taalibe la waaye di daan tox nag mu ni ko bu ko tuubul du dee sax ci lislaam waxuma laa tarixa bi mi ngi ci kasfal ijaab lii nga gaa yi def itam di dem di ci conférence yi nga xam ne dañuy contre Seydi Ahmad Tidiane ku ko ci def di nga génn tarixa bi eh, kon nag dama mbokki taalibe yi li ma leen di li ma leen di diggal kenn ku nekk na yem ci ta sëriñam rek li ci des nag lislaam ma ko moom ñi di ko doxalante dimbalenteeg dem ci ngénte yeeg dem ci dëj yeeg seeti ñu feebar ak dimbaleen nit seen yooyu charia la amaa sa jabar na moom sa kaw laal dong nga bëgg mu si kenn moom dong muy toog bëggoo fa fekk benn benn xarit amul amul xarit amul àndaloo kon nag tariixa mu nanguwul nàddante nanguwu ko képp koy def di nga boo am si Abdourahmane sin sin xiiti yi dañu ko woo ci benn te borom xam-xam bu rëy la Maroc yëpp ci ñi rawan la bokk dafa Euh, Seydi Ahmad Tijaan bi mu tabaxagul jàkkaam ji daana julli ci masjidu xarawiyin man joo xam ne jar na julli naa fa pay bi rek boo taxawee fii doo xam doo mën seen ki ca des mu julli ñaa ñaar ñaari rakkaay yooyu ba noppi bu fekk góor gi mi ngi jàngale mu geestu ko di ko geestu di ko geestu rek bi mu jàng bi mu bi mu sëlmalee mu ne nañ dem siyaar nit yàlla bi nu ñaanal no mu daal di jóg ak taalibe yi di ko nuyu si Ahmad Tijaan laaj ko ay masam mu wax ko ba noppi mu ne ko ñaanal no bi mu ba jóg dem dem taalibe yi song ko nag Seydi Abdourahmane Sy xiiti la tudd ni ko yow dañu xam na ne Maroc ci ñi fi raw nga bokk kii waa yoo xam ne di ko sa sañ laayam di dong jóge saaraay yi nga dikk di soxla ci kanamam muñ mm-hmm. mu jàpp leen seen ko mi billahi la laa ilaha illa wa xayruhu xawma ko xam-xam moo mm-hmm. dem da jël tariixa bi si moom ba Seydi Ahmad Tijaan ginnaaw bi loolu lii tam li ma tax ma di ko nettali mooy ñi nga xam ni dañuy jaxase tariixa bi ak di naadante ak di nekk foo xam ne fii dañ fay contre Seydi Ahmad Tijaan mm-hmm. moo dem ca conférence ba waa ji di wax ba dugg ci tariixa bi ci gaar si Axmad Tijaan dafa toog ba yàgg rek mel ni dafa gën ñi yëkk yëkkati ko ba ca kaw dóor ko ci suuf si Axmad Tijaan ne ko tontu woo jógoo lu tax tontu woo jógoo bi mu demee ci feebar boobu ba di waaja dee la ko wax taalibe ci kër suñu jàpp moo tax say euh, sëriñ itam téere bi mooy bi ma mujj dajale ndax taalif mooy dajale rek mhm. yoxi jaamur mhm. waaye nag tariixa bi ñetti kenn ku ci nekk war ngaa am man nga war xam ñetti yëf nag mhm. sart yi tax nga nekk tijaan ak inconvénients yi ci li yi li ciy génne donte yaa ngi weer dëgg ak avantage yi nga am ba doo ñëwi kenn ñett yooyu nag laa dajale fii eh, ñaar fukki sart ak ñett yi seexa seexa wax ak fi mu ko wax te si xaaj maa di woy ko ci faakee te ne sart yi fokk nga def ko te bul sonal sa bopp di bedd ba si boo ko deful doo ci ak ku mën a jur soo fi loo moom laa ci def ñi def def ko nag ci français pour ñi nga xam ni jàng nañu français mënuñu jàng arabe ñu xam ko bi ci des moo di yi nga xam ne boo ci def fi saa si ngay génn tarixa bi du ñu xaar lu xaaru ginnaaw boo ko defee rek nekkatoo tijaan fukk laa ñaar nag Seydi Haaji Maalik andi na ci ñeent nag siyaaratun wa tarku wal muhaawana wal jam ñeent yoolu Seydi ma di wax des na nag juróom-ñett indi naa naan fi téere bi ko bi ko indi fukk ñaar yooyu nag bu ci nekk mu ngi ci téere bi moo nekk nii e, bi ci des nag mooy avantage yi nga xam ni ñi bëgg tijaan yi sopp leen te duñu tijaan fukki yëf laa ñeent Seydi Ahmad Tijaan yow sédd sédd na leen ko mu des ñaar fanweeri ak yu manqué benn wala ñeent fukk yu manqué benn loolu ñi nga xamante ni bii ñoo signé contrat bi ñoo ko moom eh, ak salaat bii na nga xam ni képp koo xam ni kii jaamu nga yàlla ba noppi wax ko wala nga julli wala nga werd man ngaa doog ne yàlla nangu na te Seydi Ahmad Tijaani moo ko wax ci e, ci jawaayul maan yi ak e, siyaare bi Sidi Ahmed Tidiane bii nga xam ni ku ko indi it nitu yàlla bëri pour ku ci dem faas mhm. mu siyaare ñaari siyaare bii la ak siyaare yonent bi nga xam ni nag ku ci dem màkka soxla nga jël benn jël siyaare bi rek mhm. boo nekkee fii def ko itam mhm. ko saari ko noonu la mel kii nag dama la koy jox rek pour taalibe yi nga xamante ni bii gëm nañu tariixa bi tey jàng tubaab te jàng liin ja jàng leen nag jafe na jàngi ndax kii jàngale du am jot yow mi jàngi doo am jot te dina jàpp ni it pour que jàng nañu tubaab ndax ñi jàng tubaab te bëgg tariixa bëgg diine ni ñu mën a dimbalee tariixa bi keneen mënu ko ndax day tax duñu complexe ndax bu mu waa ji ba la ci tubaab ëpp la fu xaalis te gën laa fonk tariixa bi doo complexe ah? boo gisee jigéen joo xam ni itam sa fa tabaarakallaahu sañse ba rafet ëppoo ko or ëppoo ko dara mu yor kurusam fonk tariixa bi yow mi nga xam ni xëy na benn rob nga am xanaa doo complexe ndax ki la coppile lépp am naa benn jigéen boo xam ne bii ci ci kër gi ci eh, daara ji bis bu ne juróomi junniy salaat fa lay def bés bu ne mosu ko manqué te dafa ne naa ko dolli si salaat faati ma ne ko loolu doy na am naa benn jigéen boo xam ne ooram lépp da ko tëgg kurus ak jigéen ñoo xam ne bu ma la am na ci ku ma dama ni bu bu ñuy def xadara gis na fi si jaxma teel toog moo tax kii nag nga ñaanal ma ci yàlla defoon nañ ci junni waaye yëpp may nañ ko ma mu jeex ndax may ndax may nga ma ndigal ma sotti ma kii ko may séddale ko eh, mbokk taalibe yi kon Aliou gay nu mu gën a gaawee na na ku ko mën a defar même couleur bu mel nii ah soo amul ku ko mën a def même couleur bu mel nii bàyyil ba ba nga koy am bu mu wecc bu mu changé bu mu changé couleur couleur bu mel nii nii mu ma ko joxee nii mu mel nii ku ko mënta defar mu mel nii indilaatal ma dégg nga waaw kay leer na comme sa wëllëre maam nag Cerno aadama Gaye ak moom te yaa sës ci moom ci ndeyjooram moo tax ma jox la ko pour defar ko nag nu mu gën a gaawee mu mel nii yow muy sa sa tarbiye sa maam ak moom jërëjëf Diop ñu li ci des rek mooy Aminatoo ngi nii nga jox ko tarixa bi waaye lu jiitu loolu rek bëgguñ la téye ndax ci koor nga jóge waaye ñu ngi lay sante lii yëpp boo gisee ma tudd ko dama koy faral di tudd ci conférence yi di ko wax ci gàmmu yi waaye boo ko nettalee ci sa gémmiñ nag danañ ne ah, kon de shérif la mu doon wax dëgg la ndax saa bu ne dama koy nettali wax la sa diggante wayjur di suñu maam sëñ Aline Diop jubal ne leen moo magoon Seydi Hadji Malick ba noppi it sëñ Seydi Hadji Malick a ko tuddee sëriñ Aline Diop jubal ne ko ànd ak moom jub kon nag loolu bi ñu ko baaxee ah muy seede boo xam ne mataat na àddina bi yëpp ndax lii tey waaw yàlla man na def na suura mokkal na alxuraan lépp ba fii mu toog nii fa tëggul fànn yi doomi soxna yi jàng yëpp jàng na ko wax dëgg yàlla maanu it laa ko xamal mu dima dimbali lool eh, moom laa yóbbu dayaa pour dekkalaat daara ja am na benn jaamu yàlla it bu fa dem ni tabaxal um, école bu rëy boo xam ne bi yaakaar naa ne su sottee ah lu ñu fa bëggee def dina ma fa nekk ma ngeen ñaa nga di ma ko ñaanal yàlla moom it ku baax la Mouhamadou Diaw doomu sëñ Diaw la ma ne ko niamal ab eh, gis nga li ñuy wax ci kóllëre sa way jur day ba ñuy xam sëriñ bi sa way jur lañ ko xamante woon ak moom muy sëriñ Mor Diop sëriñ sëñ Jaw eh, man de ba ma xamee sëriñ moor ba fii ma toog mook sëriñ Jaw laa xam lu ne ci àddina sant na ko sa sa jur sa way jur defal ko ko waaye moom it lu ne defal na ko sa way kon bu wëññeeku nag wax lu rëy lu toll nii ci yow yal na yàlla mottali boobu mébét te yàlla boo ci gis sa bopp na alxuraan ki ma kii na alxuraan kon nag loolu nga xam ne sa waajur moom la am ci Serigne Mor ba Serigne Mor am ko ci yow kóolite googu yal na ko yàlla mottali yal na yàlla defal ko lu raw sa njortu ci moom yow it yal na la yàlla defal lu koy sa njortu ci moom ak sa waajur te ànd bi yàgg lool lool lool lool ba téeméeri at yi teg. bañ naan seen sëriñ mool daal tey lay feetale téeméeri at ak fukk ak benn buñ paree nag ñu seet lu cay teguwaat yal na ko yàlla def yaa xadeek njaboot gi ñëpp fekkee ñu it fu ngeen geesu gis ñu waaw yal na ko yàlla def kon aminatu ñu bañ a téye sëriñ bi nga ñëw am nga ñaari ndigal bu yàlla mhm. ndax sa wayjur <clears throat> moo la sant te yàlla moo la sant nga topp sa wayjur wa qadaa rabbuka an laa taabudu illaa iyaahu wa bil waalidayni ihsaanan noonu la sëñ kon nag ihsaan boobu topp ndigalam mooy ci jëkk bu fekkee la mu la digal neex na yàlla kon nag taagu nga ko ba ba jox la ndigal te ndigal boobu moo gën a foor ndigal yëpp Seydi Ahmad Tijaane man lam yaburra walidayhi laa yatayasaru lahu suluku haasihi tariqati képp ku tubb say wajur mënoo nekk tijaan ko gis toppul wajuram sëriñ bu mu mën a topp du ko jëriñ dara Seex Alaaji Marit nee na boo topp wajur te baalu ñu la doo dee ci lislaam bés booy yàlla kon nag am nga ndigal boobu ndigal bii ma lay joxit eh, bu Seydi Ahmad Tijaan la jaare ko ci Seydi Ahmad Tijaan yi jox ko yàlla mooy tarix bi ma lay bëgg a jox tarixa yonent bi la bu Seydi Ahmad Tijaan la bu Seydi Hadj Omar la bu Seydi Mouhamadou Xaali la jaar Seydi Omar Seydi Hadj jaar ci sëñ ali sëñ sëñ Haaj Maay mu jox ko sëñ ali Diop ab Abdou Assis bu baax mi itam jox ma ko ma na ma yaasa boobu sëñ Ahmadou Ali Mbaye jox na ma ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen soxla ma tudd yëpp eh, moo tax ma am sañ-sañ joxe ko ak góor gii nag góor gi sëñ Baaba ko si def ko ni maa yow bu kenn jiitu nan laa waaw maa yow bu kenn jiitu nan langa wax naa ko fii benn waay weddi ko ma ne ko waaye du ko jig nag semaine semaine la ci dee ma ne ko parce que marta war a marta bi du la du la baal loolu semaine ba laaj ko Mor Diop kon nag dinaa la ko jox ci ndigalal ñooñu ci sa ndigalal way jur ci Eh, Seydi Ahmed nag bu daan jox jigéen werd du ko laal yonent bi bu dee daan def mu baayaa du laalante jigéen ñi te yonent bi na ni man saafaxa imraatan ajnabiyatan habasahu llahu fi naari alfa aamin bépp góor bu jox loxo jigéen joo takkul jógéen joo takkul nga jox ko loxo su la ko yàlla baalul dina la tëj ci sawara junni mi ngi ci e, taskiratul xursa bi yonent bi moo ko wax yàlla nag su ko neexee baa sax yéefari looloo tax e, loxol yonent bi musul tegu ci loxol jigéen ji mu takkul Seydi Ahmad Tijaan noonu sunu kilifa yi nu jiitu noonu moo tax duñ joxante loxo mm-hmm. te mu bàyyi liñ ci xam mooy joxante loxo mm-hmm. Seydi Ahmad Tijaan nag dañuy ñetti yëf yi bala ngaa jox nit weer dina ko nangul boppam te su ko nanguwul nga jox ko ko sa ah, sa ijaasa niil na mënul nekkatoo nekkatoo muxaddam moo di nang nga ko wax ni ko doo siyaare benn wali bu dund ak bu dee budul Tijaan ak saaba yonent bi nangu nga loolu mu ni doo ko jëlee itam doo ko doo ko bàyyi mukk ndax ku lëre goo fas ci yàlla d'accord nga ci loolu nee na itam nang ko na doo ko booleeg benn tariixa werdu benn tariixa doo ko yor nangu nga loolu boo am boo di boo di jigéen soo amee jëkkër lu mu la sant te mu neex yàlla te mu neex yàlla na nga ci def la nga man sa ndey ak sa baay itam suñuy dund lépp lu ñu la sant te mu neex yàlla la nga man nga ko ci def ak di ko werdu subaa ngoon ak julli juróom nangu nga loolu nangu nga ko bisimilah sëñ Saliou tegal tegal اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح allahuma sal kon toxabee sabama xalqal naadiyatan wasilatan wa rahmatan muttasil sayid ahmad sayid sayid ahmad tijaani wa astadiru himato fi itaayi tarixatihi hmm? fii fii kay إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن أوفى بما عهد اللهم رب هذه الحضرة الربانية وهذا النبي التجاري اللهم أحيينا عليها وأمتنا عليها وبثنا عليها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد اللهم رب هذه الحضرة الربانية والحضرة النبوية وهذه التجارية اللهم أحيينا عليها وأمتنا عليها وبثنا عليها تبارك amin amin laa ko gis muy sol léegi koy sol léegi waaw ndax mënatuma dañ la koy may mu ne kon bii mat na deux pièces mu ngoog waaw kañ alhamdulilah ñu xam ko waaw képp koo xam ni boo wasifaa ba noppi daal ko ciy teg ci tariix ba ngay dund ci ngay dee ci ngay dekk te dinga nga bokk min ko defee nag dinaa ko jox sa papa nga xam ne koo koy ku koy ku koy am yow yaa képp koy jàng ginnaaw wasifa ba ngay dund ci ngay dee ci ngay dekk te bokk ñi tànneef yi ñii nag ñaani sëñ xaaj Maalik mm-hmm. ñaan yi itam mm-hmm. daanaka jarul lu ne ñu ko dugg ci ndax mm-hmm. lépp lu ñuy lu ñuy rek ñu kii ci ñaan bi lépp lu ñuy moy toog musu it ñaan bi dugg na ci kon bii ba la neexee boo ko moo ko ree boo weddee nga def waaye bi boo si waa def bii am ci ndigalam mbon ñu dina may nga ñuy ndigal ñu fotti ko photocopie ko waaw allahuma rabba hadihi xadarati rabbaniya wa xadarati nabawiya wa xadarati tijaniya allahuma axina alayha wa amitna alayha wa baasna alayha wa jaalna min xiyaari ahliha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin beneen bi hadihi hadiyatun bi fadlillahi minna ilayka ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam jazallahu anna nabiyana wa sayidana wa maulana wa xabibana wa shafiana wa wasilatana ila rabbina maulana muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ma huwa ahlu jazallahu anna cheikhana wa sayidana wa wasilatana ila rabbina wa walidina wa murabbiyana cheikhana sayd alxaaji malik radiallahu taala an ma huwa ahlu wa radiyallahu an cheikh Tijaani wa man lana ilayhi wasilun kaashifu lxumami wa man taallaqa bil azyaali qaatibatan subba alayna ilahi afral isami wa kulli man talabu saaliha daawatina wa gayrihim min zawil imaani kullihim faqbal ilaahi yaa rahmaanu tawbatana bilfadli waljuudi wa ridwaani walkarami kaza usuli wa ahbaabi usuluhumu amimhumu rabbi taamiman bi zil xikami wa man lana muxsinun wa man nusiu lahu kii li li li li li lim lépp moom daf koo tënk dani wa radiyallahu an seyxi tijaani ba man lanaa ilayhi wasilun kaasal xumami yow yàlla maa ngi lay ñaan sa ngërëm li nga xam ne moo ko wéy lépp moo dàq sa ajana yàlla na ma ko mayal Seydi Ahmad Tijaan ak ñi nga xam ne nag jël nañu wedd Seydi Ahmad Tijaan silsile bi nga bëgg si ci yow ñooñu alaaj Maalik ak mm, ay njabootam ak Seex Alaaji Mar ak ay Modou Xaali xam nga ñooñ ci ngeen jaay sañu jaar man yàlla boole si ñooñu moom boo leen tudd rek wa man naa indi wasiila yi moo leen dugal mu xam nga xam ni boo ko boo leen ci làmmañ tudd nga ko isaaratan wa wa wa laftan kon nag boo defee lii kii la jox weer da ko ko jox ba ci Seydi Ahmad Tijaan dugg na mu ni nag waman taalaxa bil asiyaari xaatibatan yow yàlla ñi aju si Ahmad Tijaan yépp ci taalibe boole leen ci taalibe bi nga xam bi nga xamul yëpp te daj si Ahmad Tijaan ngërëm loolu nga xam ne moo gën lépp boo ko joxee si Ahmad Tijaan man tamit nanga ma ko joxal taalibe benn bu ne mu ni nag subaana subaana ilaahi ma ni sa géej sa géej ji yërmande yi ak sa géej ji ngërëm joxal ma ko mu ni nag wa kulli man talabo saaliha daawatina wa xayri min sawi imaan yow yow yow yow yàlla képp koo xam ne dafa yaakaar sama ñaan ni ma soxna Ami bul ma fàtte ci ñaan sooy ba nga di ko waaw ba leen di fàtte ba ma la parce que wax ko fii dégg nga ma la mu ni kon nag mboolem ñi nga xam ne yaakaar nañ ci man ñaan ngërëm loolu nga jox si dam ci ñaan boole leen ci ak ñi nga xam ne yaakaar nañ si man ñaan waaye ay jullit lañu nag kon laa julli yëpp dugg na mu nag mooy usul yi say cosaan say cosaan ci aadama la commencé yëpp dugal nga leen ka sa usul yi wax baa bi samay soppe itam ñi ma sop seen usuluhum ñi ma sop boole leen ci ak co seeni si ndey ak baay ba ci aadama boole leen ci moo tax mu ne ko yi wa ahbaab yi seen samay cosaan ak samay soppe ak usuluhum seen i cosaan seen soppe yëpp boole leen ci waaw mu ngoog mu ni waman lanaa mufsidun waman nu si uloo yow yàlla ngërëm loolu nag mboolem koo xam ne kii mos nga maa defal lu baax moo xam da nga maa jox taasuf café wala da nga maa jox tiisi boo xam ne dama dama koy sol wala nga defal ma lu mu mën a doon mhm. ngërëm doon nga jox Seydi Ahmed Tidiane mhm. na nga ci sédd soxna Karimatu mi mhm. ak mboolem ñoo xam ne ni defal nañu ma teraanga nag wama nu si wuluwoon nag ak ñi nga xam ne nag ameel naa ay tooñ wala ay àq bu ma ko xamee bu ma ko xamul yëpp fayal ma leen kon lu des dara desul bi kii soo ko waxee solo nga lim kenn yëpp dugg na nijaay may noonu lay def moom moom dafay dafay dafay sëñ baa ko def ni akmal afdal ahsan sëñ nijaay maay lu mat lu ne day seet la gën a mat lu rafet lu ne mu seet la gën a rafet lu lu gën lu ne mu la gën a gën mooy kii bu foofu fay xaw xam ni lay mel te mënul ku ne nga lim ko xam nga waaye soo waxee lii du du limal ko mi ngi mel ni nga jël benn sec def ci milliard ne ko bëgg na ko waa kër yi bokk soxla nga naa diw ak diw ak diw ak diw ku bokk ci kër gi ci bokk nga ci eh, wamaa nu addi min askaari jumlata faxfalana bihim yaa faadima yow yàlla jaamu yàlla yi ma jaamu yëpp yàlla yëpp ak sikkar yi ma sikkar li ci baax li ci baaxul yëpp nangul lépp nangul ma lépp te ngërëm loolu nga séddalil ma ko ñii te boo toogee ñaanal sa mbokkum julli fa ne ko yàlla daf koy nangu ba noppi joxaat la ko yow ci ni yàlla toll lii loolu lay tekki kon kii soo ko joxee soo lu ne nga taaree ko ndax nit ñi bu ñuy wasifa ba noppi ñii bëgg nañoo sawi ñi bëgg nañoo liggéey soxla lu ne nga di ko di ko rebatu loolu wane sa bopp dongal ak loo mokk mutu ko lii rek doy na mu nag lii bi itam lépp looy muslu looy ragal ak fu mu mën a jógee dugg na ci juróom bi wane way yi mu ni nag auzu bi auzu billahi min sharri kufaari wa min sharri nasaara min sharri sayaatini wa min wasiirin wa jinnin suma si xedin famin wa aynin wa aynin wa sayaatini mu ni yàlla na nga ma musal ci nasaraani ak seenu ay ak mboolem buur yi nag ndax nasaraan yi seeni pexe rëy ci xeex lislaam ak buur yi nag mu ni yow yàlla yàlla nag ba min ak képp koo xam ne dangaa représenté buur la ko dale ceeb buur ba commandant ba ministre ba député ba chef de service ya yëpp boole yëpp mosuma seen ay mu ni <clears throat> wa jinne yi itam mosuma si ñoom te jinne dafa bon ndax boo demee ci téer tiir ibnu xayma ba nee na mboolem kéemaan yi nga xam ni jinne nit yàlla dañu ko man jinne yi nañ def lu ko niru waaye nag ba mu def dëpp sunna dëpp sunna mënu ko moom jëm jinne am na ñoo xam ne dañuy toog fii seeni rawaan si jinne seeni rawaani jinne mm-hmm. di leen wax di biiri nit ñi te doon benn tomb amuñu ko ci yàlla benn tomb dañu ay raaw raaw ay jinne lu ñuy yoo xam di ñuy tàggat ñu sant leen lëf ñoom ñu sant leen lëf bul jàpp ak na nga bul sangu janaabaak na dinaa la jox mbooloog sàmmati yaay yëpp gaa yi dañ koy def bu ko defee nag din ji du jeex mukk mais tomb amoo ko ci yàlla walay sa jaahun wa ixbaarul xalaayiqi ma nay di du naa bi ma xamee ne fatini nit ñu bari ak mbooloo bari taxul am benn cër ci yàlla tànk boroom tegul tànkam ci sunna si yonent bi mu ne nag ba jinin su ma si iqadin fammin wa aynin ma ak eh, iqdu nag kañaan ñaar ñett la dafa am alxasad am iqdu am eh, kaashi iqdu moo di ma gis sëriif ak mbooloo ma ak xaasañ ma añaane ko kii waaye waxuma ko nag waaye sama xol a ngi bëgg a dagg mhm. te moom xolam mi ngi kontaan ci seen seen bi xam nga ko boroom dong lay loro mhm. ak ki nga xam ni nag bu dikkee nga may ko dépasse teral ko waaye bu génnee nag di ŋàññi sa biir rek te bu bala loolu nag mooy mooy kaasi mhm. asad nag moo di yii nga xam ni dafa nekk si biir xol bi nga jóg nag pour manifester ko nag moo tax mu ne wa min sharri haasidin ak ayu aji añaan isa hasada ba mu jógee bu feeñal kañaan gi mu ni nag moo tax mu ni nag ak ak famine ak gémmiñ wa ay ni te yooyu dëgg la eh, gémmiñ loolu l'islam reconnaître la ak bët am na bët yoo xam ne lu ñu yéem rek mu am mu yàqu am na làmmiñ yoo xam ne lu ñu tudd man sama ñaari baaraam yii gis nga ko. gis nga ñaar yii. 52 mhm. laa doon bind benn téere Muxaddamatul Kokki fi ma koy bindee benn góor dikk xool mbir mi leer sëñ moom moom bind waaye moom laa mbind mi ko machine. ndax booba mbind mu rafet dama ko yii léegi mbind yi sax ñaawat na mënatuma ko léegi mënatuma mbind yooyu. tisbaar la ma ko wax tàkkusaan xaw ma fu ma nekk ñaari baaraam ñëw fi saasi. am naa man weer benn góor bu ñuy wax baay ma jaañ kam benn tukuloo la taalibe si Haaj Maalik la moom lañ suul ci sama wetu papa ne le moo di ko wax ko mu wax ma benn aaya ni ma aaya bi yonent bi la ni soo fekkoon xeer yi gën a rëy bés bu na nga dem jàng ko juróom-ñaar yoon tiwle ko ci pour mu jóge fe da ngay dégg doo doo fekkaati xeer bi moom laa jël def ko moom mu dañ cinquante deux laa la wax de ba soixante dix xam na mat na ñaar fukki at may dem ci laa jëkk dem Màkka ma dem di tàggoo ji dajeeg moom. mu ne la sëñ Mor fi mën a bind ba tey rek ba ñu newewaat <laughs> pour wan la ni yi mi ñuy wax ay réalité la bu ko defee nag mu ni mu Seydi Hadji Malick mi ni nag ba yaa ngi ma musal ci jinne yi musal ma ci kañaan yi musal ma ci biir gémmiñ yu aay yi musal ma ci bër bër ci aay waaw waa yi ak ak bët wax yi nii wax yi nii ak jigéen ndax bàyyi na lu góor jigéen na ko ko teg nag wax ak jigéen jullilewul lu ne mën na ko yóbbu góor nag te eh, jigéen nag suñu nat yu rëy rëy rëy yoo xam ni <laughs> mais ba nu leen bu baax a baax am benn benn sama benn xarit dafa am jabar ju fa tabaarakalaa ju ak sagoom nag xam nga jigéen ji daf ni ñoo xam ne day mel ni du ñu mer te fekk na day mer mel ne am nañu mat gu day ni doo ko mën a xam mu wax ko daal ba mer ne ko fas fukki yoon mun ko ah, ndijaay loolu bari na di teen ko wàññi ba fukki yoon jigéen ji bi jël soo ba ñëpp tëdd mu jóg bale kër gi yëpp tabee ko defal ko yépp ba mu rafet lalaat lal yi waaye ji yow ni ah kii naa dina tuub mu julli ba noppi ci ginnaawam ba noppi di ko muuru bu jëkk xeeñu asalaamaaleykum ndi yaay de maa ngi kon yeewi ko ndax baa di <laughs> ak seytaane yi mm-hmm. eh, jinne mooy tur bi sayaati yi ñooy yéefar yi yéefari jinne yi mu ne ma musama ci ñëpp wa saalimin ak tooñkat ak tooñkat yi moo xam danga am pal di tooñe wala alal di tooñe walla xam-xam di tooñe te tooñ yooyu nag dafa yaa ndax lool nag sëriñ yi sëriñ asaar yi bokk na ci ñi ci ëppale ay tooñ ndax da ngay dikk rek gis sëriif ak mbubam mu rafet nga añaane ko dem ci benn sëriñ ni bu ko su dafa ma ne liggéeyal ma ko te jotewu leen dara kat yow nga mu ne loo boo ma joxee dàq sa aajo faaji mu weexal la nga liggéey sëriñ te jotewu leen dara te defe yow sëriñ nga <laughs> doo sëriñ te loolu nag mooy mboolem sëriñ yi yi ci mu mucc ñu tuuti lañu di liggéey nit wala ngay ñaan yàlla nit wala nga xexeel nit te jotewu leen dara parce que kii naan la na la fay rek mooy comme moo fay ko rek nga rey nit mu ne nag wa saalimin wa munaafiqin mu naafiq mooy kuy feeñal lu bokkul li ci sa sa biir yàlla bay na ko ne sax ñaafeq mm, yi fi darakil asfali mina naari yéefar li muy bon bon bon bon kal bi naafiq yi def moo gën suufee bi muy dem sawara moo tax naafiq naafiq lu bon la mu ni yaa aw dégg nga de wasi hasadin ak borom kañaam mooy na ma ko digli woon wa man tafa sa saay-saay saay-saay nag ci arab mooy kuy ni ma yàlla di ko feeñal waaye mooy yàlla lu mu rëy rëy rëy nga nëbb ko te kenn xamu ko kenn sañu ko feeñal te kenn sañu ko waxit lu mooy yàlla lu mu rëy rëy boo ko nëbbee kenn sañu ko feeñal te kenn sañu ko nettali amaa nag boo ko génnee ci biti nit nettali ko pour ñu moytu la jëwul lu jëw moo tax xataa jox loxo jigéen public caay-caay la tudd ci ci lislaam buur màkk bi jox loxo ndaw si saay-saay la tudd ci ci lislaam ndax feeñal gi mu ko feeñal te li ci gën a bon nag mooy sëriñ bu koy def boo xam ne bii nit dañu ko fonk mu di ko def ba noppi nit ñi ko gis di ko ci roy boo waxee mu ne sëriñ diw dina ko def kenn rawu ko waaye kenn gën na koo jub moo moo tax mu ne <coughs> moo de wasiyaasi ba man tafa saxe bi yaa rahman najji nii nu mu ci ñoom najji nii nag mi naan saaraat te waxoon na ko wa man xafaw tariqahum ak ñiy toppandoo tubaab yi nag kon da xam nga si xaj gaa yi toppandoo tubaab yi nga xam ne daanaka toppandoo ba nga xam doo xam sax ki jullit da wala du jullit yëpp si xaj Maalik wax na kon lu ñu moytandikoo ngi fii lu ñu ñaan nekk na fii kii nag fa tabaarakallah ah, xaw ma nag Amina da ko joxal Aliou rek mu photocopie Aliou bu ma nee pare suba ci ajuma ji sax ñu seddale ko ci xadara bi jërëjëf kon nga ñaanal ñu yàlla sëriñ ñu bañ la téye déedéet déedéet ñuy waxtaan ba mu ëgsi si loolu ma ne wax dégg na sëriñam wax ko ma ne ko de loolu lu ndax dégg na ko ci diw ma ne ko loolu lu muy tekki ma ne ko loolu lu muy tekki ma ko nag eh, am na ci tariixa bi place yu bari dañuy baamu faate mhm. bu yàqali jàpp kon nag noo koy dégg mhm. ma ne ko xamuloo ko de ma ko li li ñuy bëgg a wax mooy bu nu dajee ñun ñëpp toog mhm. kii ni man de damaa am soxla ñu ko jàngal faate kii ni damaa am solo mu nañu ko jàngal faate kii ni damaa am soxla nañu ko jàngal faate ci benn jitaay bi baamu googu ñu koy baamu day yàqali jàpp bi moo tax mu ne benn faate rek mën naa faj soxla ñu dëkk kaw ak ñu dëkk suuf loolu mooy tekki bi waaw kon nag ñu jàng faati salaatu faati ñaan ci barke Seydi Ahmed Tidiane ak xulafa am yëpp képp ku fi jógee lépp loo soxlaa ci àdduna ak àllaaxira ci mu neex yàlla yal na la ko yàlla may nun ñëpp mu day nu ci tariixa bi dund nu ci tariixa bi dekkal nu ci tariixa bi jigéen ñi si nga xam ne ñëw ñu fi itam yal na yàlla jubaleel seen i borom kër te seeni doom yàlla boo leen ci xulafaawu tariixa bi faj seeni aajo àdduna ak alaaxira sëñ sëriñ mbir yàlla guddal fanam ndax lu rafet rek laa dégg mu di ko wax di ko def yal na ko ci yàlla saxal faati saatu faati والهادي إلى صراط المستقيم صلاة تجعل علينا دواء وشفاء wa najaatan wa amaanan min kulli illatin wa musibatin wa balaa bi rahmatika ya arhamar rahimin bi jaahi wa fadli wa barakati wa sirri wa asamati allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatih lima uxliqa walxaatimi ma sabaqa naasir xaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari asim bi jaahi wa barakati wa sirri wa asamati tabarakta ilahi min adari ila dari